mbokk yi njàkkare ak tiis ah, ma ngay bëgg a jeex ci réew mi gannaaw bu problème taxawee nag ab solution la ñuy wër solution nag ñëw na ki ko indi di Serigne Yadaly Ndiaye di daan di borom xam bu mag a mag mag ci réew ah, suñu borom nag may ko xam-xam ci wàllum faj ah, mu ciy def lu am am solo dinaa ñëw nag ci feebar ya nga xamante ne tey ma nga koy faj waaye damay ñëw ak moom ci wàllum istixaar istixaar nag mu ciy def lu am solo suñu borom dénk ko ci ab xam-xam damay door ak moom feebar yi nga xamante ne mi ngi koy faj lii di wàllum télé impuissance sexuelle wàllum euh, rhumatisme jigéen ju bëgg am borom kër wala ki nga xamante ni tamit dafa bëgg am doom góor gi nga xamante ni bu teewee alal mu dem wala ki nga xamante ni tey dafa umu loole lépp nag Serigne Yadaly da koy faj nag Serigne Yadaly nag day nekk fi nga xamante ni tey moo di Touba ndaamaatu wala fi nga xamante ni moo di Parcelles Assainies unité 16 yow mi nga xamante ni nag yaa bëgg a jokkoo ak Serigne ya Ndiaye njaay ko ci numéro bi di 77 122 77 wala nga c'est bon. ayca jëf salaamaaleykum mbokki Sénégal salaamaaleykum mbokki àdduna ah, ñu ngi leen di nuyu rek saa su ne ni leen daan nuyoo fii ci Sénégal Buzz 221 ànd ak suñu naataango seen buzz ah. nekk fii ci Gambie yaakaar naa ni daral fi koo xamante ni sénégalais xam nañ ko àdduna xam ko muy suñu maman Fatou Ndiaye dañu koy bàyyi rek mu nuyoog mbokk internet yi maman ñu ngi leen nuyu bu baax. asalaamaaleykum El Hadj nuyu naa la. man it fay naa la lu bari. fay nga ñu ñu bari yaakaar naa ñu ñëw fii nga xamante ni moo di Gàmbi ku ne Gàmbi nag mu ñàkk ba ñu wax Maman Fatou Ndiaye Maman Fatou Ndiaye ci biir Gàmbi. si ah, biir di Maman Fatou mm-hmm. faramaareen bi. Mm-hmm. Mm-hmm. faramaareen bi doon loo xamante ne mën nañ ne nag jiitu na sa diggante ak Wally doonoon diggante yow ak Papa Thione lan nga ñu mën a expliquer sa diggante ak Papa Thione maman. Ah, Papa Thione macha allah ku baax la Papa Thione Papa Thione Gambia la Papa Thione Papa Thione àdduna bi yëpp la nit Papa Thione ku baax la mun na li muy def ku yiw la ku jullite la ku yëwén la ku rafet xol la tamit nit Papa Thione àdduna bi yëpp xam nañ ne nit ku baax la nit ku sincère nag ku ñeme dëgga waaw nit koo xam ne amul njuuj jaaj moom waxam lépp a direct lépp lum ne loolu la loolu la su ne non su ne waaw waaw kon papa coon papa coon yi ñëpp la. Mhm. papa coon ñëpp la sa ànd yaak papa coon kañ la door. papa li ma si mën a wax mooy papa coon mun naa ne moom suma taay mi ñoom yaay yi la. moom génération boobu la. Mhm. papa coon génération am. suma yaay la. Mhm. waaw. seen fan la jógee moo indi seen seen seen booloo yéen ñaar. Um, papa coon suñ xamante. Mhm. definitely suñu waan bi dañ daan dem suwaareem di dem seetaani waaye tout le temps suñu waxee rek ma ne leen ah ma de papa coon wóyam yi yëpp. jàngat la si man ni Papa Thione day wax te lu muy wëy tey digle ke lu muy wëy bu waxee ñëpp a xam lan lay wax kon Papa dafa mel ni ticca bu am ay élève am lu wax rek élève yi war koo déglu nit boo déggee ay woyam rek foog nga am ci loo ci jàng waaw. boo dégloo am loo ci jàng mu wax kon ne way bu wayu bu yeetewul diglewul ay naxaate kese la tey jamono dox ba diggante sa diggante ak Wally Seck mel noo xamante nit mën na ni sa yaay ak ñoom Papa Thion la woon lan moo indi ko jaxasoo boobu Wally Seck moom alhamdulilah parce que si Wally dafa am sama benn doom ay la tudda soo waxee rek si Wally génne si télé bi mu ne ma man saa yaay ma ne naa mu ne man naa nopp Wally Seck fu ma mun di nekk dina ma oo ne ma Wally mu ci tele bi kon mun naa wax ne suma doom bi Aïcha moo waral lii yëpp suma diggante Wally ba tey ma nekk yaayam fii biir Gambie bi mu buggee Wally eh, bi mu bi mu moom dafa nopp Wally Aïcha bi muy nopp Wally defe naa am na ay ñeenti at juróomi at yooyu rek la am mm-hmm. ba tey Aïcha am naa ay ñaata at xam nga mu bugg a waali ba bugg a dee ma yóbbu ko kër kine kine yóbbu ñu kër waali ñu gisante waali waali woon ko ne ah xama Aïcha woon waali ne man yow laa nopp waaye bi mu gisee soxna soxna ne ko yow da ngaa sama jëkkër ji ma ñëw téye sa preuve bi gis nga mu nekk affaire boo xam ne affaire bu doy waa ñu reetaan kafre depuis loolu nag salma waali téye waali téye ma téye boo xam ne sax mënumaa comprendre naka la jaaga mm-hmm. bugga ma ba bugga dee mm-hmm. man ma raw ko mm-hmm. def ma comme kum bokkal ndey ak baay Mama ni tey lu nekk rek dafa am fu muy commencé suma diggante waali ak papa coon ak mama jaaga Kine yaay waali ak doomam yi ak waa kër gi yépp Aïssa fa la commencé suma Aïssa mu ndaw kon noonu laa xamante ak ñoom waali mhm. mhm. nga xamante ak ñoom waali ba am taxawaay boo xamante ni fu mu nekk nii kenn du wax maman Fatou te tu ci teg famille Papa Thione loolu doon loo xamante ne complicité bu am solo la ba jàpp nañ ne rek waali ak lu mu xat xat xat xat xat bu ñëwee biir bi mën nañ ne fii lay añsee. waaw loolu loolu dëgg la ak si àdduna bi tey ku nekk am nga sa bët di xool mhm. te Olof Ndiaye dafa ne. jàmbur dina dem bi gënal la sa mbokk parce que jàmbur bi am na nu mu la téye di am mbokk te du jàmbur bi am na nu muy daweek si yow di ci sonn yow si sa bopp dina la wóor ne kii wóor na ma ne diw ak diw samay mbokk lañ waaye jàmbur bi tey ni mel si man kii war naa ko mën a téye ba raw sumay mbokk kon Wally suma diggante ak moom lépp dëgg ko lal su ko naxaate laloon kon tey fi ma teg duma fa teg àdduna bi yaatu na gàm bi yaatu na ñi ma fi uppale alil yaatu nañ ñi ma fi dàqa yaatu nañ ñi fi gën a baax yaatu nañ ñi fi gën a yéwén yaatu nañ waaye dama ne suma diggante ak waali du benn doomu aadama Aïcha mi nga xam ne yàlla moo ko sàkka muy suma doom kon tey dama ne lépp suñ boroom la moo tax man dem naa bi Màkka. dem aji ji ni maa gis ni aji naa. Mm-hmm. dem naa aji ji. Mm-hmm. ma taalay samay loxo. Mm-hmm. après ma julee ba pare ma ñaan suñ borom. suma diggante ak waali. bu fekkee ne lu gën la. yenn diggante bi continuer. bu gënul nag na dem ma dem. waaye depuis ma def loolu. waali Seck toujours bu ñëwee bi dina def lu bees lu war a tax ma gën koo téye. dina def lu bees lu tax ma war ma war ko ah, ma ma gën koo téye kon lépp si moom la ak si tey am na nu ma doon mel duma fonka duma téye duma faale même su ma ko buggaloon suma boppa sax mbaa suma doom bëgga ko mbaa ñu xamante am na yu bari yu muy gis ci man duma téye nit waaye ku ne xam na ko ku ne xam na ban façon ngi nit la nit koo xam ne la nit ku am dignité ci boppam la ku am classe ku am maanaa doon nit koo xam ne ku am fulla ku am fayda man dama ne montar yu baax yëpp ñooy bokk iir montar yu bon yëpp bokk iir kum téye ba taf ci booram bind la yaay sama yaay kon dama xam ne lu mu gis ci man lépp lu ma doon def ci moom benn oo mu gis jikko yi rafet ci man tout le temps dama ko gën a yokk te gis naa ne moom heure bu ma gisee mu gën di ko neex suma yëf gën di ko neex mu gën maa téye gën maa fonka gën maa jàppale xam nga man daal heure bu ma gisee waali rek mu mel ni tey laa ko gën a bugga moom it heure bu ma gisee day kontaan si man nit lu ko waral direct rek moo am solo nit ki da ngay direct te man gaam bi ba mu daj àdduna bi ba mu daj mun naa yëkkati suma loxo ne man semaine laa benn yoon lay tooy faramaareen lañ ma xamee mm-hmm. waali lañ ma xamee mm-hmm. dama ci téye mm-hmm. dem ci ba jeex nangu ma see gëstu ginnaaw nag de man damay xool suma kanam rek di dem muy lu ma neex ma dégg ko muy lu ma naxari ma dégg ko xooluma dara nit diggante boo ko tiyee mu doon diggante bu neex bu war a am mucc bu war a baax lépp loo cay def rekk bu déggoo rek yàlla jàppale leen daf ma téye def ma yaay daf ci dëggu xëjalu ci kenn boolewu ci kenn man ma tiye ko def ko def ko doom dama ci dëggu kon dama ne yàlla moo ñu boole waaye nag dinaa ci gërëm ay waajuram muy papa coon ak mama ni bu leen neexoon tey waali seen doom la dina leen ne Keita Fa Njaay bu fa lekk bu fa naan bu fa def dara yéen a gën a xam artiste yi mm-hmm. du kër fépp la ñuy lekk du fépp la ñuy lekk mm-hmm. kon bu ma Kiné bàyyee doomam mm-hmm. Papa Thione bàyyee ma doomam óolu nañ ma gis nañ suma diggante ak doomam soo waxee dañ dee wax ne man ñun ñoo jur waali de waaye yaa ñu ko gën a bugga léegi Papa am na benn bés mu ne ma Fane Ndiaye mu ne waaw mu ne ma ku ñëwoon doon ut waal def ko lu bon baa pour rek ko oo dara mm-hmm. yow de xam naa bu la njëkkee gis yow lay njëkk a yóbbu mm-hmm. ma ne ko loolu am na mm-hmm. ni xam nañ fi ma fi ma toll seen doom ji waaye yëpp moom ma ko jiiñ mënoon naa ko bëgg a tey mu am nu moo defee man bu yàggee ma gis suma boppam ma nit bàyyi ko waaye defu ko defu ko waaw loolu lépp doon ay kàddu yu am solo waaye ba tey rek dañuy des ci waxtaan bi tey boo toogee fii Gàmbi dégg Wally Seck di def ay social di def ay actes yu am solo di dimbali nit ñi di leen jàppale ci li nga xamante ne tey yàlla dénk na ko ko loolu tamit lan nga ciy gis. di sant yàlla rek di sant yàlla rek moo tax dama ne Wally niñ ko ñaanal aleel dafa sas ci xool Wally gis ngeen ni muy liggéeyee alelam bi ni mu wala bu yégee si seen ba wàcca danga koy yërëm boo ko tegalee lekk sa du ko mën a lekk ngir coono gi moo àndal ak coono bu moo am danga koy gis day ñaxabe siit ñaxabe tooy xepp kon xaalis bu mu am day barke nit coono bi moo daj balaa événement bi di jot ba muy def événement bi mu war a def ki ko woo ba mu play yàlla def li war a def yëpp xaalis boobu yëpp mu dajale ko ni mu baree muy jël lu mel noonu di ko may nit mbaa di ko jàppalee doom aadama kooku kenn amul fayal ah, kenn amul fayam xanaa ñu di ko ñaanal te xam ne man dama ne suma doom ji Wally mooy borom xoli urus bi borom xoli jamaa bi jëlut aleel def ko ci fitam bi aleel yóbbuwu ko jëlut aleel aleel tiitalu ko ki nga xam ne léegi léegi dangay toog wax ak moom léegi léegi léegi léegi si biir wax bi ngay toog waxtaan ak moom mu am lu mu sentir ekkati lu réy may la. kon ko xol bi mu am yàlla moo ko ko jox. nit ki dañ ne olof ñaa dafa ne. ku nampateen sa ndey. suñ ne kuy sa yaay ngeen ne jaaga. suñ ne kuy jaaga. jaaga mooy ki nga xam ne. nit ku jullite ku baax mm-hmm. day togga di yóbbu si hôpital yi mm-hmm. di togga di yóbbu si marché yi mm-hmm. di togga di yóbbu si xam nga jàkka yi si jumaa yi fu ne la jaaga di teg ay mana man mii yaayuwaal yi am na benn bu ma fa fekkee ñu jaaga di tooga pour yóbbu si hôpitaux yi ñun ñi ñoo dem mu ne ba mu ngi may tooñ naa ma te te di nga dem ànd ak ñoom Fatou soo dem si hôpitaux yi ma ne ko dinaa dem kañ ñoo doon séddale ay lekka yi xam nga nit ki loo tegul sa but rek doo ko mun a wax man mii bokk naa si ñi téye woon ci nuwaar yi di serwi gars yi di indi seen eh, bool yi ñu di leen tibal kon Wally tey bu juddoo di def lu baax daf ko gis si ay ay ay eh, paaraanam papa coon day xëy suba toog ci si état bi ku ñëw mu génne si poosam jox la nga dem ku ñëw mu génne si poosam nii lay nekkee ba guddi jot kon ñaari waajur boo ko amee ñu baax yow nga yow soo juddoo boo baaxut jaaxal say mbokk kon waali fi mu jaar rek la war a jaar fokk kilifaam yi teg tànkaam fa la teg tànkaam fa kilifaam yi foofu la teg tànkaam ren yaakaar naa ni sa xaru tabaski moom Sénégal lu jógee ba Gambie moom ñu noonu dañuy topp dañuy topp actualité loolu moom géej nañ ñi Sénégal la jógee ba bi ñëw fii <laughs> yéen moom xam naa ne xam ngeen lu bari <laughs> <laughs> waa loolu moom am na mm-hmm. loolu yëpp bokk na si li tax. comme li ma lay expliquer rek lan a tax ma téye xale bi. lan tax ma téye xale bi. parce si tey waale mënoon naa wax ne Gambie am na xar. mënoon naa wax ne sama yaay mun naa jënd xar. waaye toujours day def si man taraanga yoo xam ne. daf ma dee jaaxal sax. man dama ko ne même defal loo ma taraanga sax. safoo faale ak yëg bi ma jox rek doy na ma. Wally soo xoolee ñaata doomu aadama ñoo ko bugg a gis oo ñu bëgg a koo téye nii rek gis nga bu ñëwee suma néeg bii. Mm-hmm. fu nekk laa dugg amul frontière fii fu ne laa dugg fu ne fu ne fu laa dugg mm-hmm. kon kooku won na ma ne dafa bokk sama njaboot mm-hmm. moo tax su waxee mel ni ko yaay taaw aana moom moo moom moo topp si yow toujours laa ko de wax tem nangu ko te xam ko te ko. te gëm ko. waaw. loolu lépp du am di loon ay kàddu yu am solo waaye ba tey rek bu ñu dem bay fi nga toll ak Wally tey boo demee ba ci gis ay coow wala ay affaire yoo xamante ni tey day dellu si sa kaw tamit loolu tamit nu mu lay parce que gis nañ ni am na ay coow yoo xamante tamit ngi am sa diggante ànd bi nga ànd ak Wally. loolu léegi sant yàlla man dama nit ki boo xëyee oo nga toog diir yu gudda gisoo jafe-jafe sa si sa mbir nga seetaat sa bopp. am na jafe-jafe yoo xam ne gaalaaj la ci doomu aadama kon wax ji coow ji du mën a ñàkk waali yàlla def na ko xale waaye kilifa la te nag waali ni mu mel rek la mbiram mel nit ki boo baaxee bari biir yi soo tabee bari biir yi noo mën di mel coow li toppa la kon waali coow li ko toppa ñun dañ koy ñaanal rekk yàlla lafal ko cat waaye coow li du ñàkk a mukk ñun suñ mbir faramaareen hmm. bëgguñ mu sedd hmm. ñun coow moo ñuy jox boos coow bi mooy mooy tax ñu dunda hmm. coow bi mooy tax ñu kontaan nit ki bu kenn yëkkatiwul sa mbir ah nga seetaat sa bopp waaw kon ñun bu nit ñi coowee rek ñu kontaan because li ñuy coow ñoo xam li ñuy coow du dëgg kon ñun li ko ñor rekk mooy mu ci kanam rekk di liggéey liggéeyam di def lu baax xaarut kenn seetut kenn waxu ci kenn tontuwut ci kenn moom daal mu ngi dox doxam daal waaw mu ngi dox doxam te gastuwul te ñun loolu lañ bëgg si moom moo tax ñun mi nga xam ne ñun ay yaayami lañ ay fansam ay rakaami ay magam mbokkaami am di jaamaami moom ni mel mboolem faramaareen noonu nga mel man dama ne faramaareen yëpp benn indi moo leen suusal ni lu tax benn indi moo suusal nit ki boo koy xool dafa war a doon exemple muy def lu baax doon nit koo xam ne muy def loo xam ne yow ñi topp sa ginnaaw dañ war a roy si yow démba papam la woon ñu génération waali la kon tey Wally fi mu teg tànkaam képp ku ko toppa fi teg tànkaam su baaxutoon doo ko topp fa mu teg tànkaam moo baax ba tax ñun mii ñu topp si ginnaawam xale la waaye macha allah xale bu am xel ku xam li muy def ku xam fi muy teg tànkaam kon moom exemple la si ñun suñu rôle modèle la moo tax ñu bugg ko moo tax ñu toppa ko boolewul dara ak wax kon moo tax ñun lu coow lii rëy rëy rëy ñu ñu ngi xalaat nu ñuy liggéeyee fan si di bëgg fan si di kontaan ñu ñaan yàlla mu yóbbu ñu sa kanam coow dalay tojal ñun taluñ coow te bëgguñ coow ñun nañ dem nii rek si kanam mm-hmm. liggéey nit ñi kontaan nit ñi gën koo bugga benn lal lam soo ko solee nga yëngat ba na dara yëngatuwut mm-hmm. nga dooli beneen mu yëngatu ah loolu musiba la kon ñun nañ ñu bàyyi rek ñuy coow ñu ñuy def ba mu baax. lan ñenn ci ñi nga xamante ni dañuy wax ni tey xëy na boole bi leen yàlla boole woon yow ak sa borom kër am nu yàlla dogalee ñu bari jàpp ne dafa jóge sa diggante ak Wally. yaa mm, ma laaj loo xam ne nag doomu aadama bu ne yàlla moo daganal sëy moo daganal tas kon man su ma sëy. du ma ne dafa jaar si waali ndogali suñ boroom la yàlla daggaloon mu am kon bu tasee ndogali suñ boroom la sëy dagan na tas dagan na kon lépp suñ borom la lan ngay tontu ñi nga xamante ne nag dañuy naan li tax suñu borom euh, dakkal loolu noonu ànd bi nga àndal ko waali te sa borom kër dàkku ci loolu la ñuy bëri di wax loolu tamit daan nga ci tontu loolu mooy li ma la wax rek man ku mel ni man bariwuma xarit man bariwuma xarit am na time bari woon xarit waaye man bariwuma xarit fu mu nekk nii nit ñi nag dañuy wax seen wax te kuy wax sa wax bàyyi ko mu wax man bu may dem man kenn su ma utu su ma ebee keneen sama doom lay doon mbaa mu nekk koo xam ne sama famille la nit ki nag am na yoo xam ne yaa ko moomal sa bopp am na yoo xam ne nag comme olof Ndiaye dafa ne ku dee sa marché ba yaa tàggee sa bopp su ma néeg bii man ak suma njaboot ñoo fi ne kon defe naa ne lu fi ne keleng suñ biir la yem te xam nga ne ñoom duñ génn di nettali mbaa di wax lu leen neex du dégg kon coow li toppawaali foog ñu toppañu miis nañ ko ñu looloo ñuy dundal bàyyi leen ñu wax waaye dara wóoru leen suma biir kër lu fi xew uh-huh. dara wóoru leen sëy daal dagganoon na uh-huh. amoon na uh-huh. tas daggan na tas na waaye wax waaw waaye li fi xew moom li ma la wax dara weesuwu ko buñ ko dégloo ñoom buñ ko gëmee moo am buñ ko gëmut moo am lu la neex nag ñu wax waaw ñun Faramareen hmm. dawuñ coow. dawu leen coow waaye rek damay tëjee. <laughs> dawuñ coow buñ waxee rek ñu déglu leen. Hmm. waaye ñun du tere sa lañ nekk di ko def rek ñu ngi koy def. Hmm. du dëgg. olof Njaay tamit dafa waxaat ne suñ la seddee si gaali xaj. bul nangu ñu fekk la nga di ci lekk mukk kon gaali xaj buñ mun di sédda doomu aadama buñ fekkee sa loxo ca biiram ñu dëggal say wax. waaye lépp nit ñi coow di ko wax xam man duñ ñëw ñu wax ma ko bàyyi leen ñu wax bàyyi leen ñu wax ma li may waxeek ñoom bu suma doom ji ne mbir biir bi balaa ñëw sax ne mu ngiy waaj man sa lay toog fii di waaj bu ñëwee ma ànd ak moom ñu dox suñ dox mu def lu muy def ñu def ko ba mu neex def ko ci fula ak fayda mu ñibbi man ma dellu si sama liggéey waaw ñun loolu lañ tal. nan ngeen di waajee événement suba bi. def ba mu baax rek. def ba mu baax rek. waaw événement suba bi daal. def ba mu baax rek lañ koy waajee. léegi boo xoolee bi ñuy waaj li yàgg na. yàgg nañ koo waaj. waaye yàlla dimbale ñu loo waaj rek bu yegg see day yomb. kon ñu ngi ko ñaanal moom Wally yàlla indi ko mu agsee jaama bu yegsee jaama ah moom xam na ne am na gannaaw te am na mbooloo te lépp moom la lépp moom la kon événement bi du yomb du xaaja yomb ni mu ko waxee dina def ba daf def lu raw loolu nit dañ ko namoon mu namañu torop sax kon du yomb de ku ebu nag nga takk say dàll bu dëgër te xam na du yomb nit xam naa ne bu ñëwee du ñu may dara te ñu ni tamit dinañ dem ba jeex waaw waaw concurrence bi am ci diggante musique am waali jàppal waali jàppal kii jàppal kii loolu noo ko gisee loo miin si am waali jàppal kii jàppal kii mhm. moo kanay jàppante concurrence bi am ci biir musique bi am waali jàppal Sidy Diop coow loolu tamit ci biir musique bi noo ko gisee man coow loolu duma ci wax dafa nekkul luñ war a wax rek ñun hmm? ñun dunduñ dunduñ yooyu ñun liñ dunda mooy liggéey nañ kaset bu neex génne nañ ko ñu ko ñu ñu di ko déglu di ko bëggee di happy ñun lu coow lii rëy rëy rëy rek comme la ma la waxoon ñun ñu ngi suñ liggéey rek di dem dafa am yenn yoo xam ne sax yow boo jëlee sa yoon bu baax yoon yi jaama yoon boo xam ne moo gën si yow moo baax si yow doo gestu gannaaw bi leneen di la ko yàqal kon ñun xooluñ leneen dégluwuñ leneen faalewuñ leneen ñun daal suñ liggéey rek a ñu ñor heure buñ xëyee ñu ngay xool ñu ñoo gën a demee ci kanam gis nga wax dalay tardal wax dalay yàqal wax dalay um ñun na bëgguñ lu ñu um lu coow lii rëy rëy rëy taluñ coow taluñ tontu taluñ defante taluñ fitna suñ liggéeyee ñu ñor ñun daal si lu ñuy dund ak si luñ nekk moom lañ tal buñ joxee yàlla daal waxtoom yi nga xam ne moom la sant ah ku nekk nag am nga ki ngay bëggee suñ faramaareen bi lañ am muy Wally Seck di sama doom doomi Papa doomi jaaga di doomi àdduna bi yépp kon ñun taruñ dara. man dama ne faramaare ni mm-hmm. ak ñoo rafet xol. Mm-hmm. ak ñoo baax. Mm-hmm. ak ñoo tabe. ak ñoo civilisé. ak ñoo mën a sanse ah. looy tal ñun jaama rek la ñuy wër. waaw ku ñëw ak jaama. ñu nekk ak yow si jaama. ku ñëw ak leneen nag ñu bala fa nga wéet ak moom waaw. dernier kàddu lan lay doon maman ñu tàggatoo. ah xanaa kontaan rek leen gërëm. seen ñëw bi ngeen ñëw toppa si waali fii bi mm-hmm. kontaan nañ ci yéen torop macha mm-hmm. allah boo seetee télévision yi ko toppa si bari na mm-hmm. te am na nu mu doon mel Sénégal du leen jaral ngeen ay déplacement di ñëw ba fii di ko toppa si kon jërëjëf lañ leen a wax Sénégal dégg naa ñu bari jógee nañ fa ñëw yeneen dëkk yëpp ñu bari jugee nañ fa ñëw. gaam bi moom waxee noppi ñëpp a pare man dama ragal ndax est ce que nit ñi nañ xëj si stade bi. parce que wàlli nama nañ ko nama goo xam ne. kenn mënut a xam naka la. kon di ñaan di ko ñaanal yàlla rek yàlla isi koo jàmm. su ñëwee mu dal ak jàmm. lépp lu mu fi paree def yàlla dimbale ko jàppale ko mu def ko ak jàmm. yàlla may ko si ndam mu delluwaat si jàmm ba yéen ñëpp ngeen dellu si jàmm boo leen demee bàyyi ñu fi si jàmm ñun tamit ñu ñaan yàlla ñu gisee waat ak jàmm loolu la ñoo ñaan loolu la ñuy ñaan ah, di kontaan bu baax a baax a baax ci dalal bi nga xamante ne tamit dalaloon nañ ko am ah, ni mu koy waxee rek mu doon suñu yaay ju baax yaay joo xamante ne ñëpp la njabootee ñu dañuy kontaan ci moom bu baax ndax bi mu fi ñëwee ak léegi teraanga yi bëri na añ bi neex na macha allah kontaan nañ daal mama ah, di kontaan ci moom bu baax a baax a baax mbokk yi di leen jox ci beneen numéro incha allah jërë ngeen jëf mbokk yi njàkkare ak tiis ah, ma ngay bëgg a jeex ci réew mi gannaaw bu problème taxawee nag ab solution ah, la ñuy wër ah, solution nag ñëw na ki ko indi di Serigne Yadaly Ndiaye di ndaanaan di borom xam-xam bu mag a mag a mag ci réew mi suñu borom nag may ko xam-xam ci wàllum faj mu ciy def lu am am am solo dinaa ñëw nag ci feebar ya nga xamante ne tey ma nga koy faj waaye damay ñëw ak moom ci wàllum istixaar istixaar nag mu ciy def lu am solo suñu borom dénk ko ci ab xam-xam damay door ak moom feebar yi nga xamante ne mi ngi koy faj lii di wàllum télé impuissance sexuelle wàllum euh, mu jigéen ju bëgg am borom kër wala ki nga xamante ni tamit dafa bëgg am doom góor gi nga xamante ni bu teewee alal mu dem wala ki nga xamante ni tey dafa umu loole lépp nag Serigne Yadaly da koy faj nag Serigne Yadaly nag day nekk fi nga xamante ni tey moo di Touba ndaamaatu wala fi nga xamante ni moo di Parcelles Assainies unité 16 yow mi nga xamante ni nag yaa bëgg a jokkoo ak Serigne Yadaly Ndiaye woo ko ci numéro bi di 77 122 77 60 wala nga